الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأقصى من أعرض عن عبادته واستعصاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط علما بأعمال عباده وأحصاه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسول الله amara ummatahu biltamassuki bi sunnatihi wa awsa sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa man xarasa ala iqtifaai siiratihi wa ijtahada fi tamassuki bi sunnatihi wa stawsa bokki julli fi gannaaw ba nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp tey baal xaq ñëpp di fàttalante ak suñu bokki jullit yëpp gannaaw bu ñu leen ndokkeelee ci weer wu mag bi nga xam ne fan yu néew mu tàggoo ak tàggoom nag li muy yëgle mooy jublu si geneen gan bu mag yàlla ñu ci yàlla yóbbu muy weeru koor ci biir weer bi nag am na ay xew-xew yu bari yu ci xew waaye li nga ci xam ne daal jullit yépp ko bokk kenn ku ci nekk am ci wàll mu mu sëpp te kenn mooy wàcc bi ci julli wàcc Euh, wàcc gi ci julli wàcc nag dafa am laytaay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mi julli di wàcc euh, dund ba ci xar bu nekk waaye yàlla gunge ko ba mu génn ci ci jàmm xar-xar yooyu nag tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ci julli lañ la suñu borom def sama weex-weex yi bët xurratu ayn mooy lii tax bi di gis lu weex li ànd ak lu ñuul li lu ci nekk mel na mara waaye léeg-léeg ñu tudde ko xel dal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana faral di yoo xam ne kenn fekku ci julli genn jaamu yàlla fekk ko ci mooy ci julli la yàlla def te la ma yàlla defal xel mu ci la ci la ma weexale su weexale samay bët ba mu weex daal la gis jaamu la ndax bokk yi léeg-léeg nit ki ay bëtam xonq mooy bu nekk ci fitna léeg-léeg nit daal ba bëtub diw xonqee moo ko weexal nee na nag moom li weexal bëtam mooy julli loolu am na ko mooy ñaari xew-xew yu daje ci jëmmam ci sallallahu alayhi wa yoo xam ne bu dul woon ku yàlla waajal nañ ko waajal eh, leneen la ñuy wax waaye nag balaa kenn yóotu mu taxaw fu dëgër ak moom moom. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee yàlla daa jox ndigal ndigal la di jëm ju taxaw nga mën koo xool siin ndigal mooy lislaam waaye julli mooy yax yi nekk ci jëm ba muy dox di wax ak a toog ak moo tax ñoo jëm ci mooy jaamu yàlla bi yàlla jëkk gàll jullit yi waaye moom la yonent yi mu ngi dénkaane dañ ciy bàyyi ñu demee ba xam ne buy wax wax yi di ni ñu ko mën a tekkee fonk leen julli moo ñu ko leen sàggane julli taxaw leen teem ci julli ba ni mu noppee wax ñu dégg sallallahu alayhi wa sallam kon wax ne ci julli la sama bët weexee àll ci la sama xel dale ba tax mu naan léeg-léeg Bilaal qum yaa Bilaal fa arihna bis-salaa Bilaal xëy nga noonu ndax suñu xel yi dellu si dellu si dellu si euh, li tax mu ne julli ci sama ci la sama bët weexee mooy at mu ñuy wax amal fës mooy Abu Talib ñu bokk ak way juróom te yoroon ko gannaaw bu way juróom nelawee ci at moomu la ko ñàkk amul kenn ku ko taxaw aar ba euh, ba ñuy bëgg a sax di Abu Talib da bëgg a faatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéene woon na ko lu ne ndax fi mu jaaraat moom ci ak ndawam nee na ko bokk na ci ko wax ne la ilaha illallah rek sa biir teg Abu Talib ko ba yàgg mën na ko daal wax dëgg na ko wax na ko bàyyi mu ci diinay maamam moo tax bi ñu farloo yeneen bi ne ah bu ma yàlla terewutoon yàlla terewutoon jullit ñi ñaanal ku ab jullit dinaa la ñaanal jéggalu yàlla waaye yàlla moo waxoon Seydina Ibrahima ne ko maa kaana li nabiyyi walladina amanu moo ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fàttalewaale ko ca Seydina Ibrahima ba bëggee ñaanal maayam maa kaana li nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walaw ma tabayyana annahum asxaabul jaxiim yonent bi day ak ñi nar a ñëw gannaawam ñëpp di tënk ci pas-pasu ñu mën a séq ak kudul ab xëy naa doon maslaa rek waaye ak bu nekk mu faaw nga di ko ñaanal ba ku ne laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah mu tëddit yàlla da koy da ngaa defe ne ku la neex mu mel na la neex am déedéet innaka laa tahdi man walakin allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin waaye ak moomu Abu Talib melam defoon na ci moom loo xam ne mënees ko def kenn ndax moo doonoon ku mën a waxal lu nekk ndax ñëpp dañ ko bàyyi woon ñu xëyee xëy na inni rasulullah yaa ayyuha naasu inni rasulullah ilaykum jamii'an lu nekk ñu teg ko waaye su ma saan jaaxle ci Abu Taalib lañ tëkk moo tax ba Abu Taalib wàccee euh, ko doon gis sax xam nañ kii am na lu ma lu jóge moom li ci ak nit moom am na lu la jóge ci ñi nekk ni taarix ñu ne yaari weer lañ joxe wala lu teg tuuti Xadija mi nga xam ne yonent ko loo xam ne mos koo moom la yonent bi daan teg ba yàgg mu ne ah mooy ki nga xam ne de ba ma ñëpp gëmee moom ma weddi wax ba ma ñëpp weddee moom ma gëm ba euh, ba ma ñëpp xañee luñ ma mën a moom ma mën a nekk kooku itam ci diggante boobu ci la fi jóg amatul nag lenn kiiraay du nit ñi gis ak moom Euh, am na ñu dem ba yàgg sax ñu xaw koo yërëm tuuti ndax tumuraanke bu metti diggante boobu nag ñi koy fexeel di ko teg lool lool yoo xam ne dañ koy dañ koy njéemee jàkkaarloo moom ci dal gën a dolli ndax am fukki ko ruuse moo tax julli bokk yi fi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul ay jaaxal ci diggante boobu ci la ko yàlla woo yabal na mu jël ba fa ko soob mu wanale ko ak mag ñëpp ñu baax ñëpp kenn ku ci nekk jox ko cër bu mag boo xam ne xamutoon ne moom nekk nii la toll ci suñu borom subhanahu wa taala euh, ba mu gisee moom nag ba muy wàññi ba muy ñibbisi ci nit ñi ci la ko jox yóbbalu julli am na ay nett yi ñuy wax rek juróom fukk la woon te xenn wutee bi ci ba léegi waaye bi mu desee Seydina Moussa alayhi salaam ba mu laaj ko li mu doon dox ba mu ko ko waxee ne ko jox ci juróom fukk da ngay waa damaa ragal ne daal dana diis tey nga ko wax moo xaw ko wayfal tuuti am lu mu ci lu mu ci noor tuuti ba mu koy def nag ba agsi si nii mu toll ni ñu ko xamee juróom yeneen ci bi ne ko dëgg dëgg am naa kersa nag bi demati naa ko may naam boo xam ne loo ko ñaan mu may la moom sa yoon war naa sore waaye nag alaji fa bi lu bakkee ni firi julli ak yoonam waaw daf ne ku ko defee nii ñu ko waxee da am yoon juróom fukki julli yéen ko la wàcc mooy julli ñaari rakka jiitu fajar ak suba ñaaram ak rakka yi nga xam ne moom la ñuy julli yor yor ñaar ba juróom-ñett ñeent bala ngaa julli tisbaar ak tisbaar ci boppam ak ñeent ginnaaw tisbaar ak ñeent balaa takkusaan ak takkusaan ak lay topp ci ginnaaw timis euh, ñaar ba ñeent wala lu man ak gee ci bopp ak ñeent yi ko jiitu ak fukki rakkaam ñooy gee ak ñett yi nga xam ne ñii samaa la muy tudd kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmande kese la lu mu jël fii la ko jox affaire bi mu ñëwee nag dam dalee julli euh, dem ca pinc ma woote ñëpp dégg mu wax leen dëkk bu sori bu mu demoon boo xam ne maa ngi ban nañu ko fa xam ñu xoolante ne ah naa de mi ngi aju si dem duggoon rek mu di ko yokk ban leen dem naa fu ñuy wax baytul maqdis bilal Sham foofu nag fi la pas-pas yi tàmbalee ñii seen pas-pas yi gën di dëgër ñii seen pas-pas doxe rek yàqu ndax dañ ne kii bi ñuy wax moom ëpp na la su fekkee lu ñu wax nga ne dëgg la foo wax jant ba fenk ba day fenk rek soow day fenk rek fenk rek la waaye boobu nee joxoñ soow bi rek dañuy jàpp waaye ca la pas-pas juddoo boo xam ne jullee ko ëndaale Euh, am ñu ne ko dëkk bi ngeen wax dama wax ma lu mel ne taxawee ak mbedd mu nekk mu tudd ak fu ak ma ko galal mu mu leeral ko am na riwaaya yoo xam ne suñu borom laa jëli dëkk ba tegal ko ci kanam ñi ngi wane ci euh, ñi defar kër ñi nga xam ne defar nu kër bi mel mooy seen liggéey léegi-léeg ñu defaral la kër boo xam ne danga koy laal sa sa loxo ba gis oto yi gaari su ak garab te moo ne tabax buñ waaye ci nit ñi koy ku dem ci kër suñu tubaab gi ci wetu jumaa ji da ngay si fekk jumaa ji ñu mel nii rek ñu teg ko si kaw nga mën ne fii nag boo xasee ba xam si xel la nekk rek mën nga ne sooroon de tàmbali yi fii de léegi sax xarala àgg na si ñu ne ñu ñu koy filmé ba dugg ak yow ci biir saal te mooy tabax tax ko ci la si na Abu ne ko sa waa ji waxati na mooy loolu waxati ñu ne ko li wax de kenn mënu ko dégg mu ne su fekkee moo ko wax ci làmm ne wax na dëgg parce que moom la suñu borom bi wax ne ci alquran saaniyatinay id huma fi lgaari id yaqul li saaxibihi laa taxzan inna llaaha maana mooy ki nga xam ne yonent bi di jógee Makka di demoon ci jublu suñu borom moo moo ma àndoon génnandoo benn waxtu ci benn bés dugg ci am xunti Seydina Abubakar ne ko xaaral ma di ko dugg ba xam ginnaaw fu fu nit dugg ko dugal lu ma fa dal yow nga bañ a as su ma nekkee si jàmm nga as fekk loolu luy bu daa dugg mboolem pax mu fa gis mu sakk ko maasal fàtte mel ni moo xam ne ab tànkam la bu ubbee bi mu ko seetloo ne am pax yeneen tamit tëdd ci penkam ndox suuf bi toll na mu war a toll bëgg tey génne mu tëdd mu sex tànkam si nga bëgg tàngooru danaati moo ko tax a ñàkk ba ñàkk yoo rot ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yëg ko yeewu lu mu doon mu ne ko dara engrais say naa mu si nam ko keroog la taxaw lu mu waxee dëkk ba mu misaalee dëkk ba nam mel nga xam dëkk ba ne loolu nii mu ko waxee yow nga la dale xaw ma kañ dafa demoon de waaye lii ñi moom dëkk bi ñu laal xam ñi ne ñu laal xam ñu ne laal xam wala loolu sax du yëg ndax am na seen dëkk muy ñëw moo xam ne fii ñaari fan ngeen ko gis ba ñett fan bu yeexee ba ñett ñett fan dara si ne romb naa ñu ne waaw loolu moom soleetul ginnaaw li dox li ñëw loolu soleetul moom mu ànd nag wax mu soog ne nag jàlloon naa sax si daa bu bëgg ñi mel ne wax dëgg la na loo fa jële mu limale ci ak yam gi si yow dañ ko woon fi ëpp bi tàmbalee fi mu toll moom ba ba ñuy taxawal yamal ko lu may def rek gis na àtteem fa muy mujj ma wanee ma koy dindi ma koy dindi ca am la ne gëriif ne moom kat rek si yow ko waa suuf defee nii ñu waa kaw ñoom dañ koy kaw kawal bëgguñu woon bu jóge ci ñoom ndax bokk yi ak moom yëmut rek ci ñàkk ñu toll waaye bi mu xatee loolu Madina daf na Taif day Taif bi cëtu ma Jadda diggante Jadda ak Makka foofu moom ay mbokk fa nekk ma tege maa fa ndax bu fi bañee moom xanaa faa war a nag foofu fan yées ñooñu teg nañ ko loo waa Màkka ak ñu si woon wala ñemewuñu ko woon waaye ci jikkoom bi rafet euh, yàlla yabal yab na si moom ndax moo ne woon yàlla ko ne qul innama ana basharun mislukum léegi nag li koy wutale ak nit mooy yàlla la yónnee ci moom yàlla la yónnee ci moom ne ko waxal loolu bi ci waa dëkk maa ngi jumtuwaay yëpp ndax ëllëg si biir seeni setaat ak setaat naa leen dindi suñu déggal ma wala ba taxal ak si ñoom bu ma sa nangu loolu àgg na ci ci xar-xar yooyu nag ci la ko yàlla wooye foofee joxaale ko ci biir moo tax mu daan wax ne joxe la qurratu ayni fi sama sama bët daal yàlla na ko weexale ci biir ndax ak ñii jànkuwante naa ci ak jafe-jafe loo xam ne yoo xam ne yii woote bi lu mu àndal rek lu may fab teg ca kaw kon boobu mbokk yi rajanoo noonu di weeru julli diggante ñu màcc amul kenn ci ñun koo xam ne mën a ci nga jaar ci xar-xar yooyu ba mu war laa tey julli ndax amul kenn ku nit di maam toll ne Abu Talib ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ma toll ne Xadija ci moom waxaa ñuy nag waa dëkk ba siiñ la xam ku bëgg a jox loxo sax mu dumóoyu te xamoo loo def ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah kese yàlla boof ci kawam rek waaye jëfandikoo nañ ci jëmmam bi lu nekk lool xam ne mën na moo tax bu dee sëriñ ba mu jële woon ci kaw indi ko ci kaw suuf te fekk mu jàngoo teg xat banaan ci la sama bët bi yaxe dal maanaam daal tukki boobu mu tukki woon te julli bokk ci sérité bi ci la bëtam weexe dal bokk ci loolu bu julli war ngaa xam ne am nga sa su rëy boo war a taxaw gannaaw mooy jaamu yàlla dikk wàcc ci kaw jaam ci kaw jullit loolu benn la ci ay dara jaam yi ci topp dañ caa topp waaye wax nañu ne kuy xeeñ jaam ba jenn tëb ya ca des yëpp geneen lañ tudd jaam euh, mooy genn jaamu yàlla yi boo xam ne yàlla yónneewul ci moom bu dee Indonésie moom lam lam lam doon doyee ndaw la mooy demal waaye la ko rek waaye dañ ko koy jox yëngu dañ ko jox yonent bi te duñu fekkewu waaye yi bu dul dara yi kutiba alaykum ida xadara ahadakum al-mawt in taraka xayran al-wasiya ginnaaw yi bu dul dara yi yàlla nee na kenn kenn ci yéen ku nekk bu fekkee ku ko jege mi ngi dëgg man faatu te du wàññi nit lan ko mujj a wax na ca seet yàlla ak ko ko jënd woon ba suut moom mu suuta ci moom na wax la mu a wax su dee mu ko waxoon na def la mu war a def su dee lu mu ko dénkoon mu ko def kon boobu ñun ñëpp am nañ dénkaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jur yi yàlla nañu ko yàlla dégloo te jàppalal mën na ko te mu suñu cheytaan nekk bakkan yaxfirullahu lana wa lakum